assemblée nationale dafay lànk ba tëdd sa naaj wa ñu teg loxo ay député yéen a kaay gi di Sud Quotidien ak Le nee na tey jii ci altine ji Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara ak Guy Marius Sagna dinañu leen jébal procureur yéen a kaay gi de L'Observateur nee na ajuma ji nga xam ne moom la ñu génnoon ñi nga xam ne ñoo génnoon ci mbedd mi doon manifester ñi nga xam ne takk der yi teg nañu leen si loxo toll nañu si ñaari téeméer ak juróom fukk maanaam deux cent cinquante manifestants yoo ne arrêté nañu leen yéen gi di Direct na tey jii sa altine ji bu ñu jëlee Déthié Fall yóbbu ci kasu bi bu mu leen bett waaye tamit bu ñu jëlee Mame Diarra Fam yóbbu ci kasu bi bu mu leen bett bu ñu jëlee tamit Ahmed Aïdara yóbbu ci kasu bi bu mu leen bett ma ngi ci journal bi yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu koy fekk fa professeur Abdoulaye Bathily nee na képp ko xam ne bëgg nga liberte bëgg nga mom sa bopp il faut nga xeex Abdoulaye Bathily jamono ji ma ngi ñaax ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi nee na ndaw ñi nga xam ne gis naa leen ci réewum Sénégal mënuñoo ñàkk jàmmarloo maanaam mënuñoo ñàkk xeexa yéene kaay gi de la turbine nee na weeru mars atum 2021 am na lu toll ci fukk ak ñaar ñoo xam ne nañu seen bakkan ci mbiri Ousmane Sonko ba Adji Sarr bërki de am na ñett ñoo xam ne faatu nañu ci ndakaaru ak sa diwaanu Ziguinchor loolu lépp boo ko ma toll na ci fukk ak juróom ñaara ñoo xam ne faatu nañu ci ay manifestation waaye nag Ousmane Sonko ak Macky Sall kan moo ci responsable bi loole la journal bi xëy di laaj waaye li am ba des Sall Sénégal moo ciy perte yéen kay gi di réew mi ko di jeen ci xalima ak Samb nee na jamono ji politique Sénégal dafa rax dem nañ ba dugal ci loo xam ne bokku ci maanaam mbirum xeet mbirum ethnie ndax nga xam ne ñoo dëkk ci diwaanu sud bi maanaam sa diwaanu Ziguinchor te bokk ci Pastef ñoom nag nee nañu ñi nga xam ne nag ñooy takk der yi bu dee ci diwaanu ndakaaru bu ñuy dàq manifestant yi ay grenade lacrymogène lañ leen di sànne waaye nag bu dee ca Casamance bu ñuy dàq ñi nga xam ne ñooy manifestant yi ay bal réel lañ leen di dóor ay yéene kaay gi nee na situation bi ma ngi garaawa situation bi ma ngi doy waar ay yéene kaay gi di Vox Populi ñu koy fekk fa docteur Babacar Diop maire bu ville bu Thiès nee na Macky Sall ci ak jaay doole ci la bëgg nag toogee ci bopp réewum Sénégal Macky Sall dafa bëgg a saax-saaxee jaar ci kaw constitution bi jàll waaye nag nappaaje li nga xam ne mooy bëgg-bëggu askan wi waaye nag na leer ne moom Macky Sall mbooleem li nga xam ne ay njombe la am ci réew mi moom mooy responsable te bis dina ñëw dina rendre compte yéen a kaay di Vox Populi ñu xëy fekk fa Yankhoba Diémé mi nga xam ne mooy président conseil départemental bu Bignona jamono ji mer na ba maara de tali nee na ëllëgu Casamance ay ko lu man di xew ci Casamance Macky Sall mooy responsable kaddu Yankhoba Diémé la mi nga xam ne mooy njiitul conseil départemental bu Bignona yéen a kaay gi de moom nag ma ngi tuumal Abdou Diouf nee na Abdou Diouf moo nekk ci ginnaaw Macky di ko xam waaye nag jamono ji yëngoo guma te ñoom ñoo ngi jeex-jeexee na la leer ne bis dina ñëw dinaa yëkkate sama kàddu te taxawaay bi nga xam ne war naa koo amee loolee tamit dinaa ko amee te nag maanaam munta ñàkk ñoo xam ne dinañu leen délogé moo xam dañuy faatu wala dañ leen di jël yóbbu leen ci kasu bi Serigne Moustapha Sy mooy wax ci l'observateur nee na Macky Sall jaay doole gi nga xam ne moom la nekkee ci réew mi ak wàllu manipulation gi loole dañu ko war a freiner dañu ko war a arrêter Serigne Moustapha Sy ne jamono ji nag maa ngi baax a nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi nañu continuer xeex bi waaye nag ne noonu te nag bu ñu wàcce loxo yi bu ñu ragal bu ñu yox yoxee ñu jàmmarloo ak Macky Sall ndax régime bi Macky Sall ni muy doxee dara jaaru ci yoon yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar mbir mu doy mu garaaw moo xam ne na nañu ko tribunal dafa am benn jigéen boo xam ne dafa jur dooma ci maris jël ko dugal ko ci paanum ndox ba mu sedd guyu mu jël ko jox ko ay nit na leen yóbbu leen ma ko suulal leen ma ko ca armeel yu yoof ya yéene kaay gi nañu ko tëj lu toll si juróom-ñaari ati kaso yéene kaay gi du l'observateur xëy di ñu nettali mbir mu garaaw mu yéeme ca diwaanu Louga dafa am benn waay boo xam xamante ni la sant dafa dóor ab aawama la tax mu dóor ab aawam nag bëggoon lu neex ñaareel bi moo tax bi si la ko porte plainte jamono ji jël nañu ko yóbbu ko sa kasu ba l'observateur na déggu leen ma nguur Sidi Fall dafa dóor ab aawam ba maara détaal yi la ko waral nag bokkoon na ci bëgg a neexal ñaareel ba yéene kaay gi délibération xëy wax ci lu jëm ci wàllum trafic international de drogue lu toll ci cinquante kilos la ñu teg loxo ca diwaanu Kër Mbay Fall am na ñett ñoo xam ne diig teg na leen loxo yéene kaay gi di sunu lamb xëy dellu ci ci komba bi nga xam ne moo doon dox ni ki démb ci